di kontaan bu baax ci mobilisation bu am solo bii nga xam ni moom ngeen def pour teel bu ko tey ci Louga maa ngi jiital ci sama nuyoo nag kilifa yi nga xam ni ñooy doomu soxna yi di góoru yàlla yi nga xam ni ñoo ŋànk Louga te nekk fii ci biir dëkk bi di ci jiital suñu papa suñu kilifa suñu o Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar o di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci kër kilifa que ne yëpp yi nga xam ne ñoo ngan ko Louga suñu kër maam Seydi El Hadj maam Cheikh Ahmadou Bamba suñu maam Cheikh Nassir Sadbou maam maam Cheikh Mbaye suñu maam maam Cheikh Abbas Sall ak mboolem kilifa diine yi nga xam ni aada yi ndax nag lu ay kër yu mag ñoo fi am li tax ma leen di nuyu dañoo jóge ci bés bu sell muy bésu tabaski ñu jaamu ci suñu borom barki démb ah kon nag bu ñu taxawee fii war nañ ndokkeel sargal leen waaye nag tàllal leen suñu loxo ñu ñaanal ñu ñaanal Louga ñaanal réewum Sénégal gëpp bu loolu weesoo maa ngi nuyu mbooleem responsable politique yi nga xam ni ñoo ŋànk tout le mouvement Dolli ku ne xam na ni mouvement boobu tey nekk na mouvement bu li di wax incontournable fii ci diwaanu Louga kenn mënatu fee mbaa ngay nocci c'est de l'autre côté pour aller kon nag j'exprime ma fierté yéen ñi nga un ne yéen a ak man guddi ak bëccëg muy taw muy naaj muy sedd muy tàng muy lëndëm muy leer ngeen di ànd ak man ci un bu dëgg kon nag maa ngi di sargal

doon liggéey liggéey bu am solo ci biir mouvement Dolli yàlla suñu borom jëlee ko fi ñu yóbbu ko Touba ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ñi ngi ciy teg tam Souleymane Sow di suñu papa di papa ci maître Gabi Sow nga xam ni dafa sës ci man rek moom itam démb la génn àddina ñi koy ñaanal yàlla na suñu borom xare àjjana ku ñuy wax Kumba Lo i responsable politique bu mag ci biir mouvement Dolli moom itam mi ngi wàññeeku fii ci Algérie yàlla ko suñu borom xare ko ajana xare ajana mbooleem jullit bu fi jógee di profité ci occasion bi di jaale Sénégal di jaale le président de la République Macky Sall monsieur le ministre d'État nga xam ni ku ne xam ne li mu représenté ci Sénégal

waaye yéen ki nga xam ne yéen a xam politique yàgg politique xam ngeen ni lii dootul assemblée générale lii dootul réunion politique lii lu mu doon Modou Mbaye may lu mu doon kon nag maa ngi leen di félicité bu baax a baax ngeen wax lii lu ngeen mën na moon rek man seen leader seen président nam laa leen lu ko raw Macky Sall bàyyi na ko lu ne wax nañ ko am déet Mamour Diallo mosul dem fenn mi ngi fii ñi Mamour Diallo teene law nañu dem jëndi ay somnifère xam ni Mamour Diallo dellu si na gindikunte ndax ay nit bu ñuy ànd ngir yàlla dañuy gindikunte di waxante dëgg yàlla dogal na ñu def élection présidentielle fii ci réew mi au soir du 24 février président Macky Sall am lu rëy avec 58 virgule poussière ci suffrage yi nga xam ni moom la Sénégalais yi exprimé fii muy ndam une victoire écrasante et historique à la limite j'allais dire un plébiscite loolu nag yéen waa Louga kenn demul ngeen des ngeen def ci liggéey bu am solo ñu am ci ndam lu rëy rëy rëy ci biir Louga te xam ngeen ni ma ni mbokk yi dañuy loolu bu ko liggéey fii ci biir Louga. ndax loolu yéen waa Dolli kenn ëppale wu leen ci. yéen waa Dolli yéen a doon caravane yéen a doon def porte à porte yéen a doon def sensibilisation au retrait des cartes lépp li nga xam ni buñ ko defee suñu candidat gagné na yéen waa Dolli yéen a ko liggéey ba Macky Sall am ndam fii ci Louga. kon nag maa ngi leen di renouveler waat samay félicitation di leen renouveler waat samay engagement bi ñu amee ndam loolu nag mbokk yi ah demoon nañu dallu ji tuuti nag ma ñu demoon nañu dallu ji tuuti ndax liggéey nañu 2016 ba 2019 mu ñetti at ngeen sonn ma sonn ñu dem dallu ji looloo fi xew ne leen ba am ndam nag nga dallu am de bi waaw dégg ngeen seen leader dégg ngeen seen leader octobre 2018 ba léegi ñu ngi ci mois de septembre 2019 daanaka lu war a mat at lu ñu yàq ko sama bi te ñun ñuy ay doomi gor ñun waa Louga kenn duñu jam naa man mii seen leader Mamour Diallo juddoo fi ma war a juddoo juddoo fu baax ñu naan ba tax fu baax xaw ma lu dul ngor ma lu diine xaw ma lu dul jom ak politique tax politique rek tax mel noonu di ko teg sama kaw dem waaye nag yàlla mi dara teewul te nga xam ne mooy àtte te bu jotee mu àtte waaye mbokk yàlla suñu borom àtte na assemblée nationale di penc ndaw réew mi nga xam ne ñoom la askan wi teg saytu ko xool ko wax li ñu wax ba yéen ñëpp Sénégal ngeen dégg ko waaye mbokk yi loolu ku mu doyul daw loolu nag li ma bëgg a wax mooy góor buñ ko teg ci sa kaw nga dem teg gi sa tuuma ku ñu tilimal sa der nga wuti saabu ak jàmpe dem raxas sa der ba mu set wecc ñëw taxawaat loolu moo tax ngeen gën maa gis bu ma sori ci loolu ci ñëwaat ci jamono yi ñëw du yàgg lool waaye li ma bëgg ngeen xam mooy yéen waa Louga épreuve boobu épisode boobu lu mu leen metti woon rek lu ma metti woon rek metti na leen lu ko kon nag maa ngi leen di mastaw bu baax baax baax di leen ci courage bi ngeen am ak dal bi ngeen am ba yàlla suñu borom dogal bi tey ndax nit dama du la ko may ñun yàkkamti wuñu ci lañuy def bi ma lancé sama mouvement dama ni ñu yàkkamti bëgguñ def seen force bokkuñu ak man nañ def ñi ragal bu xat ba bu leen ngelaw rombee ñu wàtti daanu bokku ñoo man wax dëgg yàlla nañ dara danaa ci ñëwaat yeneen occasion loolu taxul ma waleen tay li ma bëgg ngeen xam daal moy pourquoi le silence du leader Mamour Diallo j'ai donné la réponse avec l'éloquence requise jàpp naa ni li nga xam ni moo waraloon loolu mooy li ma leen wax rek dem noppalu ji setal sama der bu mu set wecc ma ñëw bokk ak yéen ñu continué waat liggéey mouvement Dolli fi mu tegoon tànkam démb ak barki démb fa la ko teg tey amoon na ñaari objectif

ci këtt di jonn mooy dëkk bii di Louga dëkk bi di suñu dëkk ñu juddoo fi suñuy baay juddoo fi waaw ñu jànge fi am lu ñu war suñu diggante ak dëkk bi ci wàllu delloo ñu kër danañ ci taxaw tem àndandoo ko ak yéen bu neexee yàlla waaye nag bu leen fàtte la président yàkkamti baaxul de dara jotagul dara xewagul kenn xamagul kañ la kenn xamagul naka la kenn xamagul kañ la kenn xamagul naka la loo xamul kañ la xamoo naka la danga cay tee ah jobele ñoom pare nañu waaye man sen leader ku ne xam na ni ci wax jot rek lay waxe bu ci waye dal wa nuga nañu xam ni seen doom Mamadou Mamour Diallo dekk bi dekk bi di nuga ken boko ñor te ken du ko defar sans Mamour Diallo. Thank you. man du mënta am ndam ci division. mani kenn mënul am ndam te unité amul. kenn mënul am ndam te joxante loxo amul. kon nag bëgg. tous les responsables du mouvement Dolli nga xam ni dañ ma gëm gëm mouvement bi gëm sama vision gëm sama politique nañu joxante loxo bokk ndey bokk baay ndax loolu moo ñu mën may ndam gis ngeen sànq la ndaw yooyu sànq la ñu ndaw tuuti yi puus jalub suuf lu ñuy def dañuy lëngoo

waaye loolu yëpp ci cadre discussion ci cadre démocratie ak cadre respect bi ci maa ngi leen di xamal ni fas naa yéene réorganiser waat mouvement bi taxawal ay kuréel yu bees te kuréel yooyu li ko tax a jóg dul gën a liggéeyaat politique bi doon mu gën a yegg ci askan wi askan wi gën ci gis seen bopp nit ñi gis seen bopp. loolu moo tax ba ko réorganisé waat bi ñuy ñëw Louga dañu ne woon politique de développement am de ñu ne waa ji day wax rek loolu yàgg nañu koo dégg ndax nañu ci bataay yi mosu ñoo gis ay financement mosu ñoo gis ay kees ndax nañu bataay yi am de waaw dama ni ndax man ndax naa leen

ñuy waxtaan ci ak suñu jigéen ci tuuti wàdd mu forme ci jigéen ñi maa ngi koy félicité au passage yéen ñëpp tous les responsables du mouvement ngeen approprié wu ko fii ci dëkk bi ak ci département loolu nag danañ ko gën a réorganiser waat ci yeneen i anam yoo xam ni dinañ ko annoncé bu ma ñëwaatee fii beneen yoon kees yooyu yëpp am nañ ci ay xalaat yu rafet yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey pour jigéen Louga yëpp bu julli jotatee bu màggal jotatee bu gàmmu jotatee dañuy fecc seen kees fecc seen aajo ci kenn du ko yëg. loolu moo tax ñu bëgg a restructurer waat mouvement bi incha ci nekk ñu jox liggéey loolu nag liggéey boobu li ci gën a solo mbokk foofu laa daanele ma daaneel li ci gën a am solo mooy li nga xam ni moom lañ tuddee goxu dolli goxu dolli mooy liggéey bi nga xam ni moom ngeen war a ci seen quartier yéen ñi nga xam ni yéen ay responsable mouvement dolli au niveau de la base kon nag képp ku ma a jàppale képp ku bëgg a liggéey ci mouvement dolli ku bëgg ma kontaan. mooy sama philosophie te jàpp naa ne bu ñu ko gën a mën a dimbalee ci la ñuy gën a mën a te incha ci la ñuy gën a mën am ndam li ci te sargal tam ñi nga ñoom laa àndal ci wàllu politique ñuy ay leader politique nekk ci biir dëkk bi nga xam naam bokkuñu mouvement Dolli waaye man jàpp naa ne kuy ànd ak Mamour Thiaw rek mouvement Sàmm bëgg mouvement bi ku ci mel ni le professeur Mounirou Sy nga xam ni ku ne xam na ko un homme politique hors pair fii ci biir lu ko résultat yu am solo man yi bu ñu fii tey war naa ko féliciter wax leen ni man moom benn la ñu ñu sama rak nag nga xam ni mooy la lion

ndax dëkk bi dañoo gaaw ci jaxase dañoo gaaw ci yàq ay diggante ma bëgg ngeen tàcc loolu bu baax a baax. waaw waaw tàcc na loolu. léegi nag guddi na je pense que yegg si nañ suñu rajo bi te jotaay bi maa ngi leen di sant même ko kii avec moi kooku ak le météo Thiamène ak ñëpp ñooñu maa ngi sant parce que maa ngi may ñoom ñooy man. dëgg la di sant ki nga xam ne moo fi toogal tey Cheikh Oumar. Euh, Cheikh Oumar Bachir Mountaga ah, ah. euh, Cheikh Oumar muy suñu xay Souleymane Barka Ba di responsable politique ci Matam maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di rafetlu teewaayam fii ci ñun maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. merci beaucoup.